mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jaajëfal di leen uh, ndokkel ci fan yi ñu jóge di ay tabaski mbokk yi ñu réew Sénégal mi ngi dund jamono ci ay jamono yu gën lënt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 julit ñaan la am kon ñu ngi ñaan yàlla xaare leen aljana ak këru barzak bu yaatu leen wax ni bokk nañu yéen tiis beeg naqar bi métti nañu ba fu métti yem waaye di leen wax ni seeni doom war ngeen am fierté ci ñoom ndax nañuy xoolee saaba ya ak nit ñu baax ñi daan xeex ngir dëgg bët boobu lañ leen war a xoole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 puisque ceux qui le font sont persécutés. Leur signal est coupé pour un mois. Et d'autres refusent de le faire parce qu'ils sont simples, ils veulent simplement jouer le jeu de ce pouvoir à l'agonie. Les médias internationaux de manière générale, et particulièrement les médias français, ont été d'un professionnalisme qu'il faut saluer. Oui, quand les choses sont faites correctement, il faut le dire. Ce n'est pas une faveur qui nous est faite, ils ont fait leur travail, c'est-à-dire informer juste et vrai. Ces médias français sont allés jusqu'à mettre à nu les mensonges et les manipulations du gouvernement sénégalais sur l'existence de milices aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous vous en félicitons. Autant nous apprécions cela. Autant nous respectons le communiqué du gouvernement français. qui semble refléter la nouvelle doctrine française de neutralité, signifiant que, signifiant le gouvernement français ne soutient ni le pouvoir ni l'opposition, mais se donne le droit d'être en contact avec tout le monde et de discuter avec tout le monde. Mais autant nous espérons que tout cela ne cache pas un double langage Et pour autant, pour cela, je souhaiterais demander au gouvernement français d'arrêter de collaborer militairement, policièrement et en termes, en tout autre terme de ce genre, avec le gouvernement sénégalais pour les sept prochains mois. Oui, tous les pays ont le droit d'entretenir des relations de, coopération les questions de sécurité, de maintien de l'ordre. Et tous les pays ont le droit d'approvisionner ou de s'approvisionner en matière de matériel de gestion de l'ordre public. Mais lorsqu'un régime vire à la tyrannie, à la dictature, lorsqu'un régime tue et tire sur sa population, aucune démocratie digne de ce nom ne doit se permettre d'équiper ce régime, de l'approvisionner et de lui fournir les moyens de ses crimes. Et c'est pourquoi nous voudrions demander à la France, pour les sept mois qui nous séparent de cette élection présidentielle, de s'abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression du gouvernement sénégalais, de s'abstenir d'envoyer des conseillers militaires policiers ou gendarmes, particulièrement, aux côtés du général Moussa fal ou du commissaire Yag, qui sont les exécutants froids de cette besogne, de cette base besogne de Macky Sall consistant à terroriser ces populations. Nous en appelons à la sagesse de la France. Si tant est qu'elle soit, qu'elle est, qu'elle demeure encore cet ami du peuple sénégalais. Nous en profitons pour inviter le gouvernement français à rester à l'écoute, à essayer de colmater ces fissures qui tendent à devenir des fractures très profondes, des fissures sociales constatées euh, au niveau de la nation française. De ne pas suivre les sirènes des vatanguerres qui conseillent la répression aveugle, ce n'est pas la solution. D'être à l'écoute, de discuter. Je voudrais également lancer un appel à un pays nouvellement ami depuis l'arrivée de Macky Sall avec le Sénégal, qu'est la Turquie. Puisque l'essentiel du dispositif de répression actuellement au Sénégal, les engins roulants lourds, les grenades lacrymogènes, etc., l'essentiel de ce matériel provient de ce pays qui est la Turquie. Je voudrais inviter le président Erdogan a cessé tout approvisionnement en matériel similaire jusqu'à ce que le pays traverse cette zone de turbulence. Autrement, il se serait constitué complice des agissements du président Macky Sall parce qu'il aura fourni les éléments de répression. Il aura fourni les armes qui ont permis de tirer sur le peuple sénégalais. Nous tenons à garder ces relations d'amitié de cordialité avec tous les partenaires du Sénégal. Et nous invitons tous ces partenaires du Sénégal à accompagner le peuple sénégalais et non pas une poignée de dirigeants assoiffés de pouvoir et de sang. Nous invitons tous les partenaires du Sénégal. Ce que j'ai dit est valable pour tous les partenaires du Sénégal. Nous les invitons à être du côté du peuple du sénégalais et non pas de la répression contre le peuple sénégalais. Chers concitoyens, les jours à venir risquent d'être des jours difficiles. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous ne devons plus être dans des postures défensives parce que jusqu'à présent, nous avons attendu que le régime de Macky pose des actes pour réagir. Désormais, il nous faut agir. Il nous faut agir pour la libération de nos détenus politiques. Nous devons l'exiger. devons sortir massivement dans les rues les prochains jours pour réclamer la libération de ces otages politiques. Nous devons sortir, faire face au régime de Macky pour que cette détention administrative, qui est un crime en droit international contre ma personne, prenne fin le plus immédiatement possible. Nous devons sortir massivement affronter le régime Macky Sall et lui dire que ce ne sera pas à lui de choisir au Sénégalais les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle, mais encore moins le prochain président de la République. Nous avons autant de raison de faire face à ce régime agonisant. Et c'est pourquoi je vous demande, ne serait-ce que pour la mémoire de ces dizaines de jeunes, on en a une cinquantaine qui sont décédés aussi, aujourd'hui. Ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes, nous n'avons plus le droit de baisser les bras. Je vous invite, pour notre intérêt, pour notre destin commun, pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, à ne pas baisser les bras et à rester debout pour terminer ce combat. Je vous remercie.